Euh, alors am na tey suñ faal mu nu war a woo ci émission bi la Adja may eggalil le temps ñu euh, jot ko eggalil Adji Sarr. voilà on parle de Adji Sarr day ñëw day dem ñi naan dem na ñii ne mi ngi fii voilà elle s'est cachée quelque ñi naan dem na dem na. voilà dem bi confirmé na. d'accord léegi ñenn ñi nag euh, gis rek ne Adji Sarr noonu rek ñu ko bàyyee mu daal di génn réew mi dem toog nekk sa jàmmam gannaaw ba mu fi semé la pagaille ba pare dem googu mu dem daal dem toog bëgg a nekk si jàmmam dafa yomb ba tax na ñuy sàkku rek ci nga xamante ne mooy euh, gouvernement bi euh, suñu son excellence mu fexe rek Adji Sarr nu mu dellusee ci réew mi ndax munu fi def guuta bu ne weng ba pare bëgg a dem toog daal di nekk si jàmmam aji de dem na. ah mel na ni tamit moom daan doon na woote ne fi mu ne ni jamono ji ñu toll fi la gën a soxlawee procès pour leeral ñi nga xamante ne ñoo nekkoon ci ginnaaw ah, ah, pom kompolo gi nga xamante ne moom lañ ji moom lañ ko jiiñoo. aji ku muy procès ah mais yaakaar naa ne ah, gouvernement bi de. aji kan moo koy jàppale ci procès Me El Hadji Diouf. tal nañ leneen lu waaw xañ na meetar meetar dafa mel ni moom. dina ko taxawu ca boobu procès rek. waaleykum salaam. sëñ ñu ngi lay siyaar yaa ngi en direct ci Feeling Dakar de. waaw. comment nañ def. ñu ngi sant bu baax alhamdulilah. alhamdulilah. dafa am benn euh, vidéo bu may gis muy daw ci whatsapp yi ci tiktok bi. waaw. benn xale bu jigéen nekk naan Sonko dafa nekk euh, feneen nu mu tudd Fat. waaw. ak ak membre du gouvernement bi di wax. waaw. pour ma leen wax leen ne loolu yëpp ay Sonko dafa dem kin fat moo jomaay pour problème de sécurité la ñu wax. Mm-hmm. ok ñoom ñaan ñoo ko def ak seen i jabar wante a part loolu dara amul femme bi li muy wax noonu yëpp ay kàcc la. gis nañu Sonko fa lay xëyee fan yëpp moo kii te xam naa sax ñoom nit ñi dañuy wax nii rek wante li ñu wax yëpp amuñ benn preuve. maanaam pour des problèmes de sécurité moom moo tax ñoom ñu nekk king fat. waaw ñu nekk gum fa king fat après sax fii quelque temps li ngeen gis ne ñoom dinañ dellu incha allah nekk seen logement normal yi seen mm-hmm. fonction normale. wante demuñu ci fat pour noos wala pour foo wala pour xawaare. waaw kooku loolu mu fa nekk pour di yàq xaalisu Sénégal. waaw waaw loolu lañ ko wax wante loolu te ki ñu fat tamit dañoo fàttali ki ñu fat kan mooy fal kan mooy fal kii directeur bi du président. président bi koy kon waaw kon fat boo fa demee du sa kër ñu mel ni sa kër a ngay joxe dépense. loué mm-hmm. loué say locataire wala neexee na sa locataire yi génnal maa soxla sama kër. gis nga fu mu yéen ñi nañu bàyyi ñii ñu liggéey ñu xool mu ne donc actuellement King jàpp ne King doxatul euh, dañu génn ñëpp Ousmane Sonko ak Diomaye non non non non déedéet waaw mm, rek fu ngeen amee wante King Fahd nu mu doon doxee lay doxee ba léegi dara ëpp fa dara wàññiw fa waaw la ñu bàyyi li ñuy wax li ñuy wax baaxul di jaxase nit ñi di wax yenn yi baaxul lu ñu leen bàyyi ñu liggéey ñu xool ñu yàlla sural ñu am ko nit balaa nga def dara da nga koy maîtriser suba sax boo matul boo taxawee buntu almari di nga gis ñu lay romb di xëy di liggéey Jomaay ak Sonko mais Jomaay ak Sonko yëpp

loolu kese wante li ñuy wax dara amul te tam nañu bàyyi di wax wax yoo xam ne amul naan diw lii wala armée lii loolu yëpp foo la. d'accord ñun ñëpp dëkk bi ñëpp a ngi si jàmm dara amul fii ñu ngi doon ci dee xëy liggéey bu wàccee dem toog in fat mook Sonko kese fay nekk amul keneen ku tey nii. Mhm. boo taxawee doo gis école dugg leen gisoo liggéey amul. fii ak xam naa sax weer yi di ñëw dinañ gis ñun ñëpp mag mu dem loger pare Sonko loger fu mu a liggéey ñu naan loger loolu kese la problème de sécurité kese la seen loolu kese la ak ni leen tam population bi joxee bokk moo tax ñu aménagé leen fene méridien waaye dem gis naa benn femme dugg si TikTok naan ay day yàq suñu la neexee suba suba mën nga fa dem dëkk sa xaalis mën nga fa dem dëkk yow wax dëgg naa sama xaalis mën naa fa dem fanaan la neexee dem fanaan nañu bàyyi wax yooyu di jaxase di ne nii wax dëgg

dañu war a jéem a def suñu xel bi li ñuy wax amul nañ ko bàyyi TikTok bi léegi lu yàqu moo ko yàqu. parce que ñoo au début ñu ko tradition mm-hmm. Yërim Sow moo moom. parce que ba ñu nekkoon tamit privé la moomuñu ko wante kin fal Sénégal ak moom kan ma nekkoon du Racine Talla la ñu waxoon mm-hmm. moo fa nekkoon astafurlah maa jum sax ci Racine Talla. kin fat yéen yéen yéen journaliste xam ngeen Sénégal ñu ñoo moom kin fat wala xam nga leen ah, xam nañ ko kay quoi kon na kon ngi mel yow sa kër rek nga toxu ñëw dañ leen defaraat sa kër yi te pare dañ koy nettoyé waat ak yooyu rek la du benn problème naa réglage yu ndaw la ñuy def ñu ne ko dem dëkk fee ndax instant nekk nii problème de sécurité la te suñu kër ñun appartement yi dafa da ngay dégg président jënd na kër gi jënd na kër gi na problème de sécurité pour ñu ko den ak yooyu te président nekkul ko ndaw kilifa la koo xam ne ñëpp ko tiim d'accord lu ay dëkkandoo day yàq nit day yàq moo yàqat fii yàq fan lay jógee waaw wax nga dëgg de dëkk sa kër daal wóorul fi mu nekk nii. ah Diomaye ci koñ la dëkkoon ñëpp xam ko xam ay famille am ak yëpp te bu ñu ko bëggoon def dara ku ñëw ne famille daay seen doo ko mën téye te tamit nit ñi fale sécurité bi dañuy sonn suba ngoon. Mm-hmm. Sénégal dañuy fàtte sécurité ak yoon foowukaay du benn sécurité dafa am foowukaay dafa am. ki nga fàtt mu dëkk sax waroon na siiw de mais c'est dommage. non déggoo mère moom su mu dëkkoon dafa metti dëkkandoo yëpp moo demal donc Sonko ay temps bu ne bu ñu këram donc kese moom foofu foofu di foofu di waxtaan ak nit ñi léegi bu ñu fi am loolu ay kilifa la léegi nekk duñu kañ doonoo mhm. dañoo war a xel loolu moo tax kese mu dem kiin fan demuñu fa pour noos wala pour tëdd yaakaar yu médi rek suba boo xëyee boo taxawee ci corniche nañ la romb liggéey bu ngoonee ñu wàcc ñibbi déggoo li ma wax fii ak quelque léegi nga gis logement ay palais ñu dem toog ñu ngi nag ku nekk ñu wax ku nekk ñu ci dara amu mhm. dara amu d'accord Fall ok ma alors euh, ñu ngi koy gërëm moom itam c'était pour démentir propos yooyu nga xamante ne bi ñu ngi koy commencer euh, tenir ci réseaux sociaux yi disant que ñu ngi hôtel di noosee suñu xaalis ak euh, xaalisu Sénégal moo ne day pourtant ñoom sax muccaguñu ci wax ji ndekete dooraguñ sax wax ji tàmbali naa bari. mu mel ni rek waxoon naa la ko si dernier nee naa la vraiment mm. kon kontaan nañ ci fal bi e autres vraiment yëpp jaar na si yoon mm-hmm. waaye vraiment mm-hmm. pitié de ce gouvernement. <laughs> ndax lan. Sénégalais neexu satisfaire Sénégal neexu ta waxee nag mais neexuñu satisfaire. franchement parler gouvernement boo xamante ne bi ñu ko sampeeg léegi matagul sax. juróom ñaari fan <laughs> kenn ku si nekk indi say propos wax fii wax fee <laughs> ah vraiment mais mais à part avant avant tout jo jom Jomaay euh, Sonko beneen ministre bu mu mënti doon avant d'être xaw ma des ministres ou président de la République ay ay citoyens simple lañ c'est des gens am nañ leur vie. Mhm. kenn ku si nekk am nga droit ànd ak ànd ak sa soxna de dem dem falan